ñu seen xam-xam màcc ci wàllu finance ñoo jàkkaarloo ak reporter yi ndaw yi nekk fii ci réewu Sénégal sàkkuteef bi mooy gën leen xamaleek lii di loi de finance ngir ñu am ci xibaar yi ñu soxla laata ñuy dellu assemblée nationale ci marathon budgétaire bi ñu dëppmal. mu nekk benn domaine boo ne dafa technique. te journaliste bi avant ma ci wax daf ci war a wax loo xam ne lu mu xam la lu mu maîtriser la te comme ñoom ñoo suñuy canon ci lañu ñoom nañuy jaare pour jàlle jàlle na suñu information pour mu jëm ci euh, euh, citoyens yi ñu neñu forum si bi suñu wàll suñu suñu war a wargar mooy ñëw andi ay expert yu xarañ ñu tàggat leen ci luy loi de finance donc dugg ci biir loi de finance bi xamal leen ko ba nga xam ne tey jii nii député yi nga xam ne ñu ngi assemblée nationale ñi ngi commission ñi ngi liggéey ci budget bi bu plénière amee au lieu que journaliste dem rek di couvrir di def compte rendu mais ñu am capacité de poser des questions pertinentes. jàmbaar nañu ay textes yu bëri sibile jotaay faram fàccee ko si anam gi mu waree budget ba si sax ni ñuy séddalee dépenses yeeg recettes yeeg ñoomin seen bu ñu génnee si bile atelier journaliste yi daa ñu am xam-xam bi war. ngir mën a rek def seeni reportage si lu soxal loi de finance bu réew Sénégal. ñaareel bi mooy dina tax euh, experts yi nga xamante ni ñoom la seen xel màcc si mbir yi d'habitude euh, jot si ñoom day jafe lool mais genre rencontre yi day waral euh, journaliste bi am accès si ñoom et loolu mooy solos collaboration bi ak forum civil. forum civil yéene mooy. balaa yàgg xaatim ab convention formelle ak convention des jeunes reporters di kuréel gi lëkkale reporter yu ndaw yi ne ci biir réew mi lañ sa jublu mooy jàppale leen ci mbirum koppar ba ñu gën a mën a amal ay formation yu ni mel.